dafay nett li mu ne Moussa dafa romb ak ñax di jàmbat feebar ñax ga ne ko soo ma soo ma toggee naan ma wér musa ree daal di jàll ba mu demee ñaan boroomam ne ko dama bëgg nga faj ma dama feebar yàlla ne ko am na ñax sàngam soo ko toggee soo ko naanee wér mu dem togg ñax googa naan ko wér naan ko feebar ba yokk yàlla door ne ko nag demal seeti docteur ba mu demee docteur ba waxaat ko ñax ga mu dem togg ko naan ko wér yooyu ay mbir la yu baree bari ci wàllu jàng yu am solo kon nit ki na yëg ne yàlla mooy faj docteur yi dañoo mere woon benn waay bëgg ko liquide ndax daa yàgg ca lal ba nga xam ne lalu feebar la ñeebal kenn ci ñoom mu jaxase ay garab daal di ñëw daal di koy pikiir farwaa ji ne cocc daal di jóg toog allahu akbar garab yooyee réer leen tabarkalla waaye booba yàllaa ngi war ne moom mooy faj wala si yàlla ki nga xam ne yu miitu nii moom rekk moomay rey summa ginnaaw ga yuxyiin moomay dekkal yàlla rekk mooy rey yàlla rekk mooy dekkal kon gis nga ibrahima li ci àdduna lépp wéer na ko suñu boroom yàllaa ko bind yàllaa koy orienté yàllaa koy leer li muy lekk yàllaa koy jox li muy naan yàllaa koy faj yàllaa koy rey yàllaa koy dekkal yooyu yépp mu séddu ko suñu boroom tabaraka wa taala séddu ci doomu aadama lenn séddu ci xërëm yi lenn séddu ci waa àdduna lenn ti yii lañuy war a jox suñu boroom tabaraka wa muy wàllu tawxid moo tax yàlla di nettali qissab ibrahima alayhi salaam mu ne walla yàlla mooy ki nga xam ne atmau moom laa xemmem an yaxfira lii mu baal ma xatiati sama bakkaar yow ma diin bésub fayantoo ba maa ngi surat shuara ay juróom-ñett ak ñaar wallazi yàlla mooy ki nga xam ne atmaau moom laa xemmem an yaxfira lii mu baal ma xatiati sama bakkaar sama njumte yow ma diin bisub àllaaxira ba bis pinc mbokk yi xool leen ni Ibrahima baaxe xool leen ñi mu wéer suñu borom ba noppi dékk ko loxo ne ko yow laa bëgg yow laa yaakaar yow laa xemmem su àllaaxira nga baal ma samay bakkaar waaw ñun ñi nga xam ne yii Ibrahima wéer suñu borom yépp dañ koo nangoo ci loxoom mu wéer ko ñeneen mu ñun fu jëm jigéen ju jaaxle seeti ki ci koñ bi mu gisaaneel la nga joxew ñaar fukk mu yow kon yow foo jëm léeg-léeg feebar ne la tépp nga ne diwa de léeg-léeg nit faatu ñu ne diwa de léeg-léeg nit sax jël yëfi jaambur ñu ne diwa ko yàq léeg-léeg nit jël yëfi jaambur ñu ne diwa ko yàq léeg-léeg nga takk soxna ñu dàq sa liggéey nga ne moom moo gaaf moo ma de daal di koy wàcc moom far gën a lonku yooyu yëpp Ibrahima moom jël ko wéer ko suñu borom ba noppi nag tiib ci bàkkaaram moo tax ti bi nee na annaasu kulluhum xataa'un nit ñëpp dañuy bàkkaar waaye nit gën ci ñiy bàkkaar moo ñiy bàkkaar tey tuub wa xayrul xataa'ina tawaabi aw kama qaala sallallahu alayhi wa mu ne rabbi yow sama borom habli maa ngi lay ñaan nga may ma xukman xukman maa ngi lay ñaan nga may ma xukman xam-xam nga may ma fëhmu xikma lépp lu mu tiim nga xamal nga may ma ma am ca xam-xamu xam lii mooy lan wa alxiq nii maa ngi lay ñaan nga yéegal ma bis saalixiina ca ñu baax ña maa ngi lay ñaan nga yéegal ma bis saalixiina ca ñu baax ña fii zumrati ibadika saalixiin ñu baax ñooñu nga xam ne jaar nañ seen yoon ibrahima gëm na ne am na ñu ko gën ci jaami yàlla yi mu ne yàlla ñooña la bëgg nga boole ma ci ñoom tuddul wenn tur nag doomu aadama it noo mën di toll del yëg ni am na ñu la gën ci jaami yàlla yi ndax li ibrahima toll tolloo ko tolloo ko jegewoo koo toll te moom mi ngi ne naan yàlla maa ngi lay ñaan nga boole ma ci ñi nga xam ne ñu baax lañu suñu boroom subhanahu wa taala mi ñuy nettali taxawaayu ibrahim rabbi habli xukman wa alxiqni bis saalihin rabbi yow sama boroom lii maa ngi lay ñaan nga may ma xukman xam-xam xukman ak dégg al fahm wa alxiq nii nga boole ma bi saalixiina ca ñu baax ña allahu akbar xoola ji jàmbaar lim def ci diine mu def ci diinal islaam lim def ci doomu aadama li mu def ci tawxid ba noppi naan yàlla maa ngi lay ñaan nga boole ma ca biir ñu baax ñi moo tax jullit buy julli day wax ihdina siraat al mustaqim siraat alladina anamta alayhim yàlla maa ngi lay ñaan bokk ca ñu baax waaye bokk ci ñu baax ña it boo ko dee ñaan dangay ngay jël programme mu fas yéene ànd ak ñu baax ñu baax ñi footal ittaqullaha wa kunu ma as-sadiqin yàlla ñu yàlla boole ci ñu baax ñi wajaal lii mu ne ko maa ngi la ñaan nga defal ma lisaana sidqin làmmiñu dëgg làmmiñu dëgg lisaana sidqin làmmiñu dëgg maa ngi ñaan saa bu ñu ma tuddee rek du am gàkk-gàkk bu ñu may teg lisaana sidq fil aaxirin ci ñeneen ñii ñëw képp ku ñëw ci àdduna babaa baa di am yal na nekk sama tudd ca ñoom tuddin wu rafet ibnu abbas mu ne huwa ijtimaau l umam alayhi fa kullu ummatin tatamassaku bihi wa tuazimuhu xeet yépp bëgg nañu ibrahim xeet yépp naw nañu ibrahim tabarakallahu boo demee kër cheikh al islam aji ibrahima ñas koo fa dégg ñu ne barham moom la ko tudde kuñ fa wax ibrahim moom la ko tudde kuñ fa wax baay moom la ko tudde ibbu yeeg ibrahima yeeg yooyu yépp moom lañ ko tuddee ndax bëgg ku sell kooku te mën a wéetal suñu borom tabaraka wa taala mu ne kon wajal li lisaana sidqin fil axirin yàlla yàlla na ma defal lammi ñu dëggu ci ñeneen ñi wajaal nii yàlla nag ma def wajaal nii yàlla na ma boole min warasati ca ñawa nar a féetewoo jannati naim aljanna yi xewal mu ne ko éeyow yàlla yàlla nag ma boole ci ñi nga xam ne ñoo nar a féetewoo jannata naim tabarkalla muy soada yi nga xam ne bu àllaaxira ñoo yeyoo miiraasu jannaatin xuldi mu ne ko yàlla nga ma boole ci ñooñ mu ne ko nag wax li abi maa ngi lay ñaan nga jéggal sama baay innahu sama baay boo gisee ma koy jéggalul xam naa ne innahu moom kaana min ad-dallin dafa bokk ci ñi nga xam ne dañoo sànku ndax mi ngi nii ànd ak waa réew mi di jaamu ay xërëm boo demee ca xaasiyatu shaawi alal nii day wax ne wa qad ajaabahu llahu taala fi jamii daawaatihi siwa duaa bil xufraani li abihi aseetu saawi alal jalaalayni jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom mu ne yàlla nangul na ko mbooleem ñaan yim ñaan ba mu des genn ñaan mooy ñaanug jëggal baayam ndax jëggal baayam lislaam day loo xam ne dangay bokk mbaa doo bokk moo tax Abu Taalib kero bu muy génn àdduna tëdd ci lalu sukuraat sallallahu alayhi wa sallam tiim ko ne ko waxal laa ilaaha ma man cee jaar sowe la mu ne ko duma ko wax rus naa faatu ñu naan la sa bàyyi dafa caalit ba muy faatu teewul nag lenn ci nit ñi danañuy wax ni Ibrahima eh, Abu Taalib miy bàyyi Aliyu dafa faatu ci lislaam loola histoire nanguwu ko xam naa al ustaas al cheikh Ahmad Tidiane bi tey ku ko ci déglu dina ko yaatu lool waaye Abu Taalib ak ak baayu Ibrahima ñoom ñépp seeni doom dañoo nekk ci diine ji woote ñu lankal leen ba ñuy faatu yàlla xañ leen li nga xam ne mooy teraangay dugg aljan wax fiir li ab yi fiir li ab yi mu ne ko jéggalal sama baay innahu kaana min ad-daalin yàlla nga wax ci alxuraan naan yonent bi boo leen jéggaloo lit du ma leen jéggal sawaahun astaxfarta lahum am lam tastaxfir in tastaxfir lahum sabiina marra fa lan yaxfir allahu lahum yàlla miy jégale du leen jégal donte da leen jégalul juróom-ñaar fukki yoon allahu akbar kon mbir mi dangay wax laa ilaha illa ànd ci rekk tuflixu ngeen sowe wa illaa mukk mu ne ko yow yàlla wala tuxzini maa ngi lay ñaan yàlla boo ma gàcceel yàlla boo ma geccil yow ma yubaasuun bis ba ñuy dekkal nit ñi bis ba ñuy dekkal mbindeef mu ne ko maa ngi lay ñaan yàlla booma geccil gecc mooy yàlla seetaan la seetaan la mooy mu bañ a dugg ci say mbir ku ñëw ba yamal xiyaam taxaw ak sa jaaxle yàlla bàyyee la ak sa mbiri bopp doo xam foo jëm mu ne yàlla maa ngi lay ñaan yàlla booma def noonu yow ma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allah bi qalbin salim yow ma bés ba nga xamee ne laa yanfau du jariñ maalun alal waaw yow ma bés ba nga xamee ne laa yan fa du jariñ maalun alal alal lu bari bari bari bari day am bés bu mu dul am njariñ boo yore sa alal tey tëdd ci lalu sukuraat war a faatu tey boo amoon ay milliards it ya du mën a fànq déegoo gi wallaay soo xasee tëdd nag nekk ko faatu sa montre bi sax dutu la jariñate dara nit ñee koy tekki moom montre bi du yëg ne faatu nga day continuer di dox laa foo maalun nit ñi ñooy am lu leen naqari xëy na ñii di toog fii ñii di jooy waaye sa montre bi moom ni mu doon doxee noonu lay continuer di ko doxe du yëg ne yow mi ko takkoon faatu nga yow ma laa yanfa'u maalun alal jooju nga xam ne kon moom la nit di dajale di ci jaay ngorom di ci jaay diineem di ci jaay jomam di ci tës tësi ba bëccëg te bis boo ne laaj wallaahi ñaari dërëm du la ca jariñ dañ lay jëndal daal juróom-ñaari mètre jëndal la ci libee boo amee sens waaw loolu lañ ci jëndal boo amee sens boo amul sens léegi duñ la jëndal perkaal malikaan lañ lay jëndal mètre trois cent wala trois cent cinquante laxas la ci tabarkaal la lu ci des ñu denc fa fañ lay defare la des ca puso ya gaa yi jël ko léegi jaay la des ci wëñ ñu jël jaay la des ca saabu ya ñu jël jaay yow ma laa yanfa'u maalun bis bii sa alal du la jëriñ dara moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ci mën a jàngale mu ne sa alal ñett nga ci am li nga lekk mu rees li nga sol mu rab la nga dawal ci yoonu suñu borom tabaaraka wa taala waaye bis boobu xasuñu moom laa yanfau maalun bu dee fa alaaxira laa yanfau maalun bu dee fii ci àdduna it bis bi nga faatoo laa yanfau maalun wala banuun ay doom yu góor ay doom yu bari duñ jariñ dara foofu it du fa jariñ dara tabaarkalla dara du jariñ illaa lu dul man atallaha bi qalbin salim ku dikkal yàlla bi xalbin salim ci xol bu mucc xol bu set dikk alaxira fekk xolam amul bokkaale yàlla rekk ci nekk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dikk alaxira fekk naafiqut jikko ji nga ko xamal tey bu subaabu mu nga koy xamalewaat du mel ni janax doomu aadama wóorul mel ni janax janax day nekk sa kër nekk sa dëkkandoo waaye di jàpp sa yére yi di koy xotti ca suuf nga teg fa rek denc muy kurkure bi benn nga yëkkati rek doo fekk dara dikk alaxira xolam set wecc alxasadu kañaan dara ne ko ci ci kañaan dikk alaxira xolam set wecc ci albaxda bañul kenn yii ku ñëw alaxira mu set ci say xol bi xalbin salim suñu borom tabaraka wa taala da lay daal di garantil nga dugg aljanna moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci juróomi atam yàlla yebal jibril mu opéré ko ñu génne xol ba raxas ci juróom fukki atam ba muy gàdd ba muy rañaan ñu raxasaat xol bi la defaraat ko dindi ci mboolem jikko yoo xam ne dafay indi lol day ñug ñugal ci xolu nit daat ne nag yéen seen royukaay la nag kenn ku nekk ci góor góorgóorlu ba raxasal boppam yooyu opéré boppam waaye malaaka mi nag amul jotu topp gaa ñépp kenn ku nekk mu opéré la raxasal la loolu foofu la ñuy xamee jàmbaar ibrahima mu ne wa uslifatil jannatu wala suñu borom wa uslifatil jannatu ñu jegeel aljanna lil muttaqin ca ña ragaloon yàlla wa uslifat ñu xëcc ba mu jege si aljannatu aljanna lil muttaqin ci ñu ragal yàlla ndax fi ñuy dekkee ak fa ñuy jëm ca àllaaxira diggante bi daa sori dañuy dox ñeenti téeméeri at ñeenti siècle door a àgg fa ñuy jéegi siraat bu ñu yéegee siraat ba baa ñu koy traversé danañ dox ñetti téeméeri at door a taxaw ca kaw traversé ko ñeenti téeméeri at wàccaat ñetti tiiméeri at doxaat ñeenti téeméeri at door a àgg aljanna léegi nag ñi nga xam ne dañoo dikkal yàlla nekk muttaquun ragaloon suñu borom tabaraka wa ñoo ñooñe dañ leen di xëccal aljanna ñoom ba duñu ko sori sori gu toll nii wa burrisatil jahimu ñu daal di feeñal sawaraw jahim nag lil gaawiin ci ñépp ñoo xam ne dañoo bewoon ñu daal di séen ko nar caa dugg ñoom ñi nga xam ne ñoo cay dugg yàlla na ci yàlla musal kon mbokk yi ñuy déglu agsi nañu ci aaya juróom-ñeent fukk ak benn ci suratu shuara di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm te defal leen ko bañu ñu dajewaat fi ci daje bii di ñëw alamin wasalaatu wasalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah mbokk yi ñuy déglu ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonentam bi muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayhi sant yàlla ndax may nañu ba ñu dellu siwaat ci seen tafsir bi ngeen di dégg ajuma jot ci waxtu wi ci ndakaar ci 88 point 9 ci Thiès ci 93 point 7 ci Diourbel ci 90 point 9 ci Kaolack ci 105 ci Saint-Louis ci 106 point ci Louga ci 91 point 8 tabarakallahu yàlla na gën a yaatu loolu te leer nañ ñépp di ko jot mu mel ni ñu ngi woon ci suratu shuara mooy saaru ñaar fukkeel ak juróom benn ci alquran ni ñu ko toftalee nii ci kaamil bi nekkoon ci xisab ibrahima alayhi salaam suñu boroom tabaraka wa taala di ñu ko nettali ndax di ñu ci jàngal ibrahima doon wax ay mbir yoo xam ne mooy wan ñam dëkkaloon ne leen yàlla yeyoo ñu jaamu ko mu ne leen woon moo ma bind moo may jubal moo may jox may lekk moo may jox may naan su ma feebaree it moo ay faj moo may rey moo may dundal looloo tax moom laa xemmem mu baal ma samay bàkkaar ëllëg loolu bu Ibrahima jeexalee dafa daal di dugg nag ci ay ñaan ñaan yàlla yàlla na ko yàlla boole ca saalixiina ya ñaan yàlla fuñ ko tuddee na ñépp wax ni ku dëggoongu noonu mu ñaan yàlla mu boole ko ci ñay féetiwoo aljanna ëllëg daan ne ko nag maa ngi lay ñaan nga jéggal ma sama bàyyi bis ba nga xamee ne deesu gàcceel lu dul ko yaayoo gàcc ulamaa yi nee nañu ñaan yépp suñu borom nangu na ko ba mu des googu ndax mbir mi danga ciy bokk bokkoo ci doo ci mos bis boobu nag mooy bis boo xam ne bii moom laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allah bi qalbin salim ki dëkkal yàlla ci xol bu set kooko alalam mën na koo jariñ ki dëkkal yàlla ci xol bu set kooko doom mën na doom ay doom mën nañ koo jariñ waaye lu dul loolu du am benn njariñ ñu ngi taxawoon ci wa uslifatil jannatu lil muttaqin aayab juróom-ñeent fukkeel ci saar bi suñu boroom tabaraka wa taala ci suratul shuara juróom-ñeent fukkilu aaya wa uzlifatil jannatu ñu xëcc aljanna jegesil ko lil muttaqin ci ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla foofu la ñu ñu ragal yàlla nag mu di aw góor mu di aw jigéen muy mag ak ndaw nit du wax ne dama ragal yàlla rekk ñu ne ko ragal nga yàlla ragal yàlla mooy li yàlla yi tere danga koy bàyyi li yàlla lay digle da nga def la nga man waaye li muy tere moom lépp ngay bàyyi loolu moo di ragal yàlla boo fi gisoon nit muy jooy bay jooy deret ndax ne dafa ragal yàlla waaye li yàlla yi tere bàyyiwu ci lenn nee ko ragaloo yàlla waaye boo fi gisee nit ak nu mën a mel bu fekkee yàlla yi tere ma ngi koy bàyyi kookee moom dafa ragal yàlla loolu moo di ak ragal yàlla wa burrisatil jaxiimu ñu feeñal sawaraw jaxiim ñu feeñal ko génne ko ba mu leer nañ ñépp di ko séen nag ñu koy séen ñu ñu koy jegalal lil xaawiin ci ñi nga xam ne ñoo bew moo di mujrimoona yi ñi nga xam ne su sama borom tabaraka wa taala santaane waan duñu ko def duñ ca jéem su terawaan duñu bàyyi ñooña ñooy alxaawuun ñooña ñooy mujrimuun baat boobu nag di alxaawuun na ngeen ci jàpp teg ci seen baaraam wala ngeen bank seen baaraam ndax dana ñëw ci saar bi ñetti yoon ba bu ñëwee ca ba mujj ba nga xam ñan ñooy alxaawuun kon alxaawuun moo di mujrimoon yi rek fal muminuuna yarawna aljannata fa taxsulu na yaraw walsurur walgaawuuna na ma fa taxsulu lahum almasaatu wal ahzaan ngoog ñi gëmoon yàlla te daan nekk ca la muy dégle di bàyyi la muy tere ñoom dinañu gis al aljanna am mbétti am kontaanteeg xol yu rafet waaye xaawoon yi ñoom muy mujrimoon yi muy criminels yi criminel nag ci wàllu yàlla mooy kiy bañ li yàlla tëral ak kiy weddi suñu boroom tabaraka wa taala ci anam bu mu ko mën a weddee bi ñu indee mu jir yi nag wa qiila lahum ñu ne leen ayna ma kuntum ana la ngeen nekkoon taabuduuna doon ko jaamu ana la ngeen nekkoon di jaamu ñu wax ko mu jir moo la ngeen doon jaamu toppoon ca toppinu yàlla àndoon ca àndinu yàlla bëggoon ko bëgginu yàlla yooyee te yàlla taxutoon àndu leen woon ngir yàlla ana yooyee min duunillaahi te du yàlla hal yansuruunakum ndax yooye mën nañ leen a dimbale tey ñu ne déedéet aw yantasiruun ndax yooye mën nañoo am ndam tey ci kanam yàlla fegal seen bopp li leen nar a dal ñu ne déedéet ah fa kub ki boo fiihaa fa kubuki bu ñu këpp leen fiiha ca biir sawara wa kubki bu fiiha duxwiru fi jahannam noonu la ko sëriñ bu ñuy wax mujaahid di firé tabari moom ne rumiya baaduhum ala baadin wa turixa baaduhum ala baadin munkabbiina ala wujuhihim mu ne dañoo sànni lenn ci ñoom ci biir lenn ñu jaxasoo ñu boole leen sànni ñoom ñépp këppe leen seen kanam ya ci biir sawraw tabar yi noonu la ko fiire ca jukki fukkeel ba ak juróom-ñeent xatum juróom fukk ak juróom mu ne fa kubukibu fiihaa ñu këpp leen ca sawara wa hum ñoom ña doon jaamu lu dul yàlla wal xaawuun ak ñu bew ña ak criminel ya moom la waxoon léegi hum wal xaawuun lañu doon jàmm ña leen doon jaamu bant yaag matt yaag yu demee ni ki yooyu waxoon naa ci suñu bind yële nag ne wàllu xërëm day sappiku du doon saa su nekk rek ay bant yu ñuy teg ca kaaba gaag yu ñuy def nangam ba buñ ko waxee nga defe ne ñooñ la ñuy wax xërëm ni jamono di jàlle la xërëm di soppikoo moom tam di ànd ak jamono bu njëkk bi nit ñi amul xel ay bant la doon doon ay matt léeg-léeg nga gis ñoo xam ne or lay doon ak ñuy nekk xaalis léegi nag CFA lay doon wala dollar wala modd bu nit di sol wala façon létt muy yoo xam ne diine da koy tere nga lànk ne doo ko bàyyi yooye mooy nekk léegi ay xërëm nga xam ne li muy chronique ci sa xol bi noonu yële meloon noonu la yii di mel ci yow ku la ko tere nga lànk ku ci wax sax pour ngir yow da ngay defe ni kii moom dafa dafa dafa yeex dafa tàrde wala dafa muusut ndax bis saxaaba yeeg alayhi salaatu wasalaam di tere xërëm yi loolu la nit ñi yaakaaroon defe ne dañoo muusut dañoo yeewut wala dañoo tàrde tabarkalla hum ñoom wal xaawuna ak mujj muune yi kon ñooñu la yàlla ne woon ca alquran innakum wa ma taabuduuna min dunillahi xasabu jahannam noonu la leen waxoon innakum wa ma taabuduuna min dunillahi xasabu jahannam yéen ak li ngeen di jaamu lépp te du yàlla yéen yéenay nekk matum jahannam yàlla nañu ci suñu boroom tabaraka wa musal surat shuara aaya juróom-ñeent fukk ak ñeent wa junuudu iblisa ak soldaari iblis ya ajmaun ñoom ñépp mboolem ku masa soldaaru iblis toppoon iblis at baawu iblis qaatibatan min al jinn wal képp koo xam ne ki mas ngaa soldaaru iblis moo xam ci jinn yi nga bokk moo xam ci nit ñi nga bokk ajmaun ñoom ñépp danañ leen kub kiboo ca biir aljanna ca biir sawara wa ngeen baal ma fa kub kiboo fiiha soldaaru iblis nag mooy kuy liggéeyal iblis ndax soldaar li muy tekki mooy fas yéenee aar nit ñi ba am jàmm waaye soldaaru iblis li muy tekki moom tam mooy defendre iblis ba mën a liggéey liggéeyam sooy bëgg a tere dara soldaar iblis ñooy jóg taxaw ne la déedéet li ngay tere araamut daal di koy rafetal bu ko defee nit ñi daal di cay ñëw kooku daal di défendre iblis taxawal ko nekk soldaaram boo xam ne bii moo koy tasaare li muy tasaaro moo tax ba euh, maam borom tuba radiallahu anhu déggee waaja naan aus billahi min shaitan rajim baril ko lool mu ne ko ngóor si la mu ñëw mu ne ko loo jublu ci li ngay wax mu ne ko bëgg mucc ci seytaane daf ne ko bàyyil yëfam soo bàyyee yëfam rekk mu bàyyi la kon nag jël yëfam ba noppi naan ko a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim loolu du sotti bokk ci ay soldaaram ba noppi nag bëgg caa muccit loolu du sotti kon nit day fexe ba mucc ci nekk soldaaru iblis te nekk soldaaru suñu boroom subhaanahu wa taala ba ñu leen këppee biir sawara ñoom mujrimoona yi walla wal xaawoona ak ñi wa junuudu iblis ak soldaari iblis yi ajmauna yépp xaalu ñu wax nag waxum ñoom ba ñuy wax fiihaa ña nga ci biir sawara yaxtasimuuna di xuloo ña biir sawara yaxtasimuuna di xuloo xuloo ba nag ak xëccoo ba lii la ñuy wax gaa dañu ne leen tàllaahi giñ nañ ci yàlla in kunna ñun dañoo nekkoon fii dalaalin mubiin ci sankute gu leer ñu dañoo nekkoon ci sankute gu bir gu leer naññ lañu nekkoon ñun ñii nga xam ne ñooy wax ak yéen ak yéen ñu leen is ndaxte ñun nu sawwiikum dañu leen doon yemaleeg bi rabbil aalamiin borom mbindéef yi ñun daal dañu leen a yemale woon ak borom mbindéef yi te ndeket du ngeen borom mbindéef yi jegewu leen borom mbindéef yi is nu sawwiikum bi rabbil aalamiin te yàlla lenn melut ni moom dara melut ni moom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moom mooy rabbul aalamiina mooy borom bindéef yi lépp loo jël yemale kook yàlla mii borom bindéef yi nii ñiy réccoo yowmal xiyaamati noonu ndax suñu borom tabaaraka moom rekk mooy rabbul aalamiina mooy borom bindéef yi ñu ne leen wa ma adallana sànkuñu réeraluñu illal mujrimuun lu dul kàccoor yi kàccoor yi ñu dëng ñi ñu weddi woon seen boroom ñi jaaroon fa muy tere ñooña ñu ne leen yéen ñii yéen ñu sànk yéen ñu tax a jàdd yoon wi bul woon ak yéen jub ni ñépp fa maa lanaa ñoo ngi nii tey amuñu min shaafiin ci kenn ku ñuy ramm ñu ne ñu ngi nii ndeysaan tey amuñu kenn ku ñuy ramm la rammu doomu aadama dana ko di soxla bu yomal xiyaamee te mooy ku ko tinu suñu borom tabaaraka wa taala dugal ko aljanna am nay xeet yu bari waaye ñaar mooy am groupe boo xam ne ñoom dañuy ràmme ak groupe boo xam ne dañ leen di ràmm ak ñoo xam ne kenn mënu leen a ràmm ak ñoo xam ne aajo woowuñu ramm ñi nga xam ne bu yomal xiyaamee danañu ràmme mooy képp kuñ seet sa téere jëf nga am vingt sur vingt yow da nga ràmme seet sa téere jëf nga am dix virgule cinq yow dañ lay ràmm koo xam ne kii huit nga am jëm suuf wala neuf kenn mënulaa ràmm koo xam ne kii tabarkàlla yow danga am 19 wala 11 jëm kaw soxlawoo woo ko la ram ñii nag dañoo bokk ci ña nga xam ne ñoom ay 3 sur 20 ki ay set lañ am moo tax yàlla mu ne ñoom ci seen bopp ñoo ne fama lanaa amuñu min shafiina ci kenn ku ñuy ram moo tax ca saar ba nga dégg alquran nan fama tanfauhum shafaatu shafiin fama lahum an tazkirati muridin ka annahum xumurum mustanfira ba aaya jeex moo di ñooñee fa ma tanfaahum du leen jëriñ safaatu shaafiina rammum rammukat ya ñey war a ramm ñoom duñ ca mos ndax point yi ñu am moom yaakaar naa ko bokk ne wala sadiqin duñu fa am xarit xamiim xarit bu sell xamiim xamiim mooy sadiq xaalisul wudd xarit boo xam ne bii da ngeen a xaritoo te du la wax lu dul dëgg du la jay du la sànq lu mooy sadiq xamim sadiq mooy xarit rek moom bu yomb la sadiq xamim nag moom dafa jafe waaw sadiq moom yomb na lool ndax ñaare nit ñi ñoom ku ñu àndal rek na sama xarit te doomu aadama munta am lu dul benn xarit nit benn xarit rek la mën a am ndax boo jëloon lu mel nii euh, ab tàngal wala guro guro moo ci gën a neex a misaale mosoo gis guro bu am juróom-benni xarit su boobaa kenn du nekk aw xarit ay fell fel la ñuy doon waaye goro moom da nga koy ŋàdd rek mu nekk yaari xarit ñoom ñaar ñooñu ñooy sadiq xamim boo yëyee benn bi teg bi ci des moom day jooy xarit bi ballax ndeysaan di ko jooy ba wow bu ko defee du doo ko mën a jëfandikoo moo tax ñu koy def ci ndox ak loolu la dugg ca ngir bañ mu jooy xarit bi ba xaru moom guro moo tax goro ñu wax xaru goro ndax moom xaritam la xarit nag kon noonu lay mel waaye xarit boo xam ne tabarkàlla euh, melut noonu su boobaa du sotti ñii nag ñu ne yowmal xiyaamati dañoo bëggoon xarit bu mel noonu waaye amuñu ko wala sadiqin xamim ñu daan falaw an na lanaa waat naa ne suñu amoon falaw an na lanaa waat naa ne suñu amoon karratan am song menn song ca àdduna fa nakuuna danañu bokk minal mu'minina ci ñi yàlla tey allahu akbar ñu ne bu ñëwoon àdduna song ko benn song karra jëlal baat bi karra nga maas laam gi lonk muy kurra kurra mooy bal lu tax ñu tuddee kuratun kurra ndax arab bu waxee kar mooy songal songal daanañu tuddee aliw ay dara karraara karraar mooy ku mën song góor goo song daaneel ko karraar bal nag bu nit ñi nekkee ci terrain bi joueur yi moom joueur bu ne dana la song moom bal dana song seen bopp yi dana song góol fu ne mu song fa moom bal ñu tuddee ko nag songkat bi karra kurra waaye diir bi bal di am ci bopp joueur bi ngir dugg ci camp yi bu ko centré wala mu dem ci loxoy góol bi diir bu gàtt boobu muy tege ci bopp bi jàll ñi dem àllaaxira te nekkee fa nii dañu ne ñoom lool sax buñ ko amoon ci àdduna suñ delloo àllaaxira nekk ay jullit nekk ñu gëm yàlla allahu akbar falaw na lanaa karratan fa nakoona min al muminin bu ñu amoon ci àdduna li ab bal di am ci bopp joueur wala li ab bal di am ci bopp ci tànku joueur bi ndiggante suusi rek taf taf rek ñu daal di nakoona min al muminin seet waaye loolu kas néew duñu ko am mosoon naa leen fee misaal ca waxtaan yële ci lay Saxalayni maam saxaar maam saxaar benn nit la woon bu mag a mag a mag bu rëy àndoon ak jenn waay ju mu bëgganteeloon lool waa ji génn àdduna maam saxaar ne ku suul waa ji suul ko nit ñi wax maam saxaar ëpp leen doole ne leen nag foog nag ngeen suul ma waa dëkk ba ànd ñoom ñépp daal di defar xaritam bi mu àndaloon ba mu baax daal di jël maam saxaar moom tamit boole ak moom daal di suul way léeb yi koy nettali ñu ne malaaka mi daal di ñëw Munkar na kiir daal di waaw kii moom daal di koy dóor daal koy dóor mbéj parce que tell moom ki maam saxaar àndaloon te maam saxaar bëggoon ko lool te fonk ko bi ñu noppee nag jenn waa ji ne ko benn malaaka bi ne morom ji waaw lu tax nga mbéj ki mu ne ko dafa mësoon a dégg aw saaga te waxut astaxfirullah ñu daal di gestu gis maam saxaar daal ne waaw kii moom lu mu fi wut ñu ne ah ñun wax dëgg yàlla am bi ñu joxoon kii nekku ci woon kenn ki ne nañ ko xa nañ ko laaji kon suñu borom far fekkuñu fu maam saxaar mu daal di mbëkk bàmmeel ba génn ca ña koy nettali li nee nañ mu ñëw ca dëkk ba nag waaye loo wax maam saxaar rek mu ne astaxfirullah maam saxaar kaay añ mu ne astaxfirullah maam saxaar ndékki nga am mu ne astaxfirullah lépp lu ñu wax maam saxaar rek mu ne astaxfirullah mooy noonu maam saxaar defoon it ñun ñi ko ko ci defoon boo dellu si luñ la tere danga nga ko bàyyi luñ la digal danga ko def maa la ko wax falaw anna naa karratan fa nakuuna min al muminin kon loolu li muy tekki mooy ñun bala ñoo jéem a am karra wala balaa ñuy dem xanaa ñu jéem a waaj fii bu ñu demee foofee man weesu lii ina nekk na ci lii la aayatan màndarga muy wane ne yàlla kenn rek la inna fi zalika nekk na ci nettali bii ñu nettali ibrahim inna fi zalika nekk na ci nettali bi ñu nettali ñi safaanoog ibrahim la aayatan màndarga muy wane ne yàlla kenn rekk la waaye wa maa kaana aksaruhum muminin li ëpp ci ñoom du ñu gëm loolu wa maa kaana nekkut aksaruhum li ëpp ci ñoom muminin di gëm maanaam loolu nga xam ne mooy nit ñi li leen yàlla di ci ay kéemtaan yàlla nee na da koy wane ba noppi waaye li ëpp ci ñoom duñu gëm su ngeen seetloo jamono yi ngeen tollu média yi ñi ngi wane benn xale boo xam ne bii nee nañu ci ñeenti at lay toll ba muy toll ci ñetti at ñetti ñetti weer kon lañu ne la njëkk di wax waaye lam doon njëkk di wax mooy tuubu ilallahi tawbatan nasuha ay juleer nañ tuub leen dellu leen ci yàlla tuub gu rafet loolu tànn la inna fi zalika la aaya la waaye wa maa ak aksaruhum muminin ndax boo ko jàppee ne xale bu muus rek la ni xale yu muus ya fi nekkoon jàppe ko rek ne benn phénomène la rek bu fi jaar loola moom doo ci waaru waaye boo jàppee seet bu baax lu tax tubaab yi bi ñuy defar ordinateur yi fàtte calculer jéggi laan 2000 xanaa yemale ko ca ba nekkaat nag jógaat di ca yëngatu nga boole kook xale bu juddu am ñeenti at man ay làkk yu bari mokkal alxuraan ak yeneen téere te it loolee nekk loo xam ne ña ko daan jàng ñoom da ca daan am ab déer ay fukki at juróom-benni at yu demee ni ki yooyu door koo jàng ak la nga am ci at door a dal loola bu nit ne ñoxeet man ko xam ko bi ci waaraate tabarkalla ba mën a génne rongañ mën a dugal nit ñi ca loolee hmm, inna fi zalika la aaya loolu de kéemtaan la waaye wa maa kaana aksaruhum muminin li ëpp ci nit ñi dunu gëm wa inna rabbaka te sa boroom la huwa al moom mooy aji tedd ji nga xam ne lu ko neex sañoon na koo def arrahim mooy aji yërëme ji nga xam ne mooy yërëm ña ko yayoo ca àllaaxira loolu mooy kon li nga xam ne moo aju woon ci xisab ibrahima alayhi salaam nee nañu ibrahima yowmal xiyaamati dana dajeeg baayam azar daal di gis ci kanam baayam boobu azar am pënd ak euh, njaqare mu ne ko papa alam aqul laka laa tuxsini xanaa waxuma la woon ne bul ma moy baayam ne ko fal yawma laa uxsika tey de duma la moy ibrahima ne yaa bi yow yaa ma diggoon ne ma doomu gàcceel bis bi ñuy dekkal nit ñi ana gan gàcce moo gën a rëy gàcce gii nga xam ne moo ma nar dal tey yàlla ne ko ibrahim inni xaramtu aljannata ala alkaafiriin araamal naa aljanna ci ñi ko weddi woon allahu akbar xool ci ron ay tànkam fa isaa huwa bi sabx mulattax fa yuqasu bi qawaayimi fa yulqaa fi naar rawaahu albuxaari ibrahim noonu la jéeme ci baayam bëgg koo dugal aljanna baayam tabarkalla fii la mujj la ko waral mooy la Ibrahima nekk la nanguute nekk sa bàyyi ne ci njub dangay nangoo nekk ca njub ga looloo wóor bi suñu borom tabaraka wa taala nettalee sallallahu alayhi wa sallam xibaaru Muusa nettali ko xibaaru Ibrahim mi ngi ciy toftal xibaaru Nuux xissab Nuux dina ci toftal xissatu Huud dina ci toftal xissatu Saalix dina ci toftal xisatu Luut dina ci toftal xisatu Shuayb yooyu yëpp nekk tasliya li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam fi ma yalqaahu min qawmihi wa bayaanun li sunnatillahi fi iqaabil kaazibin allazina yukazibuuna bi yawmi ddin aaya téeméer ak juróom kazabat weddi woon na qawmu nuuxin niti nuuxin ya almursaliina yónent yépp li anna man kazaba rasulan faqad kazaba rusul ku weddi benn yónent weddi nga yónent yépp moo tax bi ñu weddee noox weddi nañ yónent yépp ku weddi saalix weddi nga yónent yépp ku weddi muhammad sallallahu alayhi wa sallam weddi nga yónent yépp benn yónent boo weddi weddi nga ñépp ndax ñoom ñépp ñoo ànd ca këyit ba nga xam ne moo leen fal is qaala ba nga xamee ne wax na lahum ñeel leen axuuhum seen mbokk ma nooxun noox ala tattaquun mu ndax du ngeen ragal yàlla seen mbokk ma nag axuuhum fi nasab laa fi diin seen mbokk la ci nasab ci ab juddu waaye du seen mbokk ci wàllu diine ndax Chamaxshari day wax ne haza min qawli l arab yaa axaa bani tamim yuriduuna yaa waaxidan minhum wa minhu baytul xamaasa laa yasaluuna aa axaahum iina yandubuhum ba bayit wa jeex ba dama ci tafsiru alkashaaf jukkib ñetteel ba xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñeent lañu ca indi wax jooji moo di arab day wax ne ee yow mbokkam diw waaye li ñu bëgg mooy kenn ca mbooloo ma waaye mbokk mi du tekki ne ñoom dañoo bokk ci diine mbokkoo la rek ci ab juddu nooxu ne leen alaa tattaqu mu ndax du ngeen ragal mbugalum yàlla ci jaamu ngeen di jaamu xërëm yi inni man noox day rasulun aminun lakum rasulun ndaw la aminun ju wóor lakum ñeel leen yonent boo gis rek amin lay doon dégg ngeen ñaan muhammad al amin sallallahu alayhi wa sallam rasulun amin ku wóor lay doon koo xam ne li ko yàlla ne wax ko nit ñi dana leen ko wax li yàlla ne jox ko nit ñi dina leen ko jox noonu la ab yonent di mel du wax lu dul dëgg du nëbb dëgg inni lakum rasulun amin yonent lépp lu ko yàlla ne jox ko nit ñi lépp la leen di jox lu ko yàlla ne wax leen ko lépp la leen di wax yonent day nekk amin fattaqullaha kon ragal leen yàlla wa atiicuun te ngeen topp ma ndax ku topp ya yàlla nga topp ndax yàllaa ne ko demal bu ko defee ku topp yonent rek yàlla nga topp subhaanahu wa taala te wa atiicuun la ci yonent ba di jublu mooy ngeen topp sama ndigal wa ma asalukum laajuma leen nag alayhi ci lii ma leen di woo min ajirin ci pay mu ne leen laajuma leen ci lii ma leen di woo min ajirin ci genn pay amul lenn lu may wax ne ku dugg ci li may woote da nga koy joxe déedéet moom kay suñ mënoon di joxe mooy dama leen di jox yéen waaye yéen du ngeen ma jox wa ma asalukum alayhi min ajir laajuma leen ci lii ma leen di laaxe biir lii ma leen di waxtaanal laajuma leen ci min ajir ci genn pay in ajriya sama pay nekkut illa ala rabbil alamin lu dul ci borom bi ndéefi lii it lenn ci borom xam-xam yi dañ daan jël aaya ji di wax ne kon di jàngale di fayyu yu daganut loolu lañ daan wax waaye ba demee ca téere ba kifaayatu raakibin li Cheikh Alxaaji Malik Si radiallahu anhu day wax ne ah loolu di jar naa seet ndax su ñu demee ba nga xam ne léegi nit ñi amatuñ jotug jàngale ñépp wuti leneen su boobaa jàngale mën na faa jóg kon nag léegi loola day waral ñu ubbi buntub euh, seet masala moomu ndax fii lañ koy dégg wala dañ ko bëgg a istimbaat istimbaat boo xam ne bii du dëppoog li nga xam ne moo am tabarkalla wax ci wax ju yaatu te am solo te jële ko ci téere yu wér radiallahu anhu mu ne fattaqullaha ragal leen yàlla wa atiuun te ngeen topp ma fattaqullaha wa atiuun loolu nag dafa nekk takiidan kararahu takiidan wa tanbihan ala ahamiyati al amri allasi daahum ilayhi mbir mi mu leen di woo am solo gi am solo moo tax mu waxoon fee léegi ci aayab téeméer ak juróom-ñett fattaqullaha wa atiuun mu ñëw ci aayab téeméer ak fukk daanti neeti fattaqullaha wa atiuun loolu du tekki répétition waaye li muy tekki mooy tawkiid la arab day waxee noonu mooy dëgëral li muy wax tabarkal loolu mooy diskuur noox man seen mbokk laa ragal leen yàlla yonent laa ku wóor laa ragal leen yàlla te topp ma li ma leen di woo laaju ma leen ci pay sama pay yàllaa ko yor ragal leen yàlla te topp ma daat ni wasalaam discours bu gàtt la waaye bu am solo la keroog bi nga xamee ne Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu toog na ca xilaafa ga saxaaba yi wër ko jaayante ak moom discours bu gàtt nii la leen waxoon wulitu aleykum walastu bi xayrikum atiicuuni ma ataatu llaha fa in asaytuhu fala taacata li aleykum xuumu ila salaati yarxamukum allah mu ne leen jël ngeen ma teg ma palaasu xilaafa xalifatul euh, xalifatul rasuli waaye du li ma leen dama leen a gën moo tax topp leen ma li feeg maa ngi topp yàlla su ma bàyyee topp yàlla amatul àq bu ma am ci ngeen may topp wax ju gàtt tabarkàlla waaye discours nooxun bii it noonu la gàttee noonu la ko tënke ndax nooxun la yónente la abubakar sadiq yónente ko yar sallallahu alayhi wa ñu déglu la nit ñuy tontu xaaloo ñu ne ko an nu'minu laka moo ndax dañ lay gëmal waxuñu ko an minu bika ndax dañ lay gëm an nu'minu laka ndax dañ lay gëmal ndax nit koo xam ne kii boppam dafa yàqu nit koo xam ne kii ay xalaatam des fa des ginnaaw xalaat yu toll nii lay xalaate ndax ñoom liñ yaakaar mooy gëm gi ñuy gëm noonu lañ koy defal waaye defu lañ ko seen bopp defu lañ ko yàlla ñu ne ko an nu'minu lakka ndax dañ lay gëmal dañuy gëm lakka ñeel la waaye newuñu ko an nu'minu bika an nu'minu laka mu ndax dañ lay gëmal wa tabaakati di la topp nii al arsaluuna ñu ñàkk solo ñi ñu tuuti ñi ñu suufe ñi al fuqara wa duafa al baydawi day wax ne wa haasa min saxaafati aqlihim ni ma ko njëwoon léegi wa qusuuri ra'yihim faqad qassaru al amra ala xutaami dunya xatta jacaluu ittibaa alfuqara lahu maanian an ittibaacihim wa imaanihim bi dacwati nuux tafsiirul baydawi jukkib ñaareel ñaar fukk ak mu ne moom baydawi mu ne lii moo wan seen xel yu gàtt yi ndax mbir yi nga xam ne mooy leen noox di woo dañ koo gàttal yemale ko ci mébéti àdduna yemale ko ci poñ poñoorum àdduna ba tax ñu ne noox bu la faqiir yi toppee ak miskin yi ak ñu néew doole yi ñun duñu la topp fekk na faqiir yi ak miskin yi ak néew doole yi lañu ñu néew doole walla ñu faqiir ko wala ñu miskin ko loolakat kat du xol wala imaan bëriwaana ku yàlla nattoo ay bët mu raw fuuf ba mën a om ommat ku yori bëtam di dox bëriwaa na ku yàlla nattu ay bët ba du gis mu raw fuuf ba mën a ommat koo xam ne kii mi ngi ne njaaj njaccaaral di xool tabarkàlla di xoolete gumba ak bari waaw wa innaha la taamal qulub la taamal fi sudur kon nag fuqara muy faqir waa ji sol mbubb mi mu tilim waa ji nga xam ne dafa néew doole loola du ay nattukaay déedéet nattukaayu niti noox yi lañu te ñoom loolal fi la seen xel toll moo tax la mbir mi dal ñu baree bare bare ku soloowut ni ngay solo nga ne daa des ginnaaw ku amul li nga am nga ne daa des ginnaaw ku warul li ngay war nga ne daa des ginnaaw ku lekkul li ngay lekk waxaaka saa fekk na mbir yi nekkut foofu lay taxa a àgg ca yàlla suñu borom tabaraka taala ci biiru xol lay nekk nit ñi duñu ko gis qaala nooxu ne leen wa ilmi sama xam-xam nekkut bi maa ci li ñu nekk ñoom yaa amaloon doon ko di ko def ñoom li ñuy def loola man xawma ko laysa alayya an abxasa an xafaaya damairihim wa an unaqiba wa an unaqiba ala hal ittabauni ixlaasan aw tamaan mooy leen lool man du sama du sama yitte di topp nit ñi di seet seeni mbir di leen càmbar di leen lu luñutu ngir bëgg a xam ndax topp giñ may topp ci sellal lañ ko teg wala teguñu ko ci mu ne man loolu sama yónne ko ci looloo tax ba saaba yi daseeg ah, waaja tabarkàlla joteeg moom bi ñëwee wax ko yonente bi mu leen ah jote ngeen moom ci dégg muy wax laa ilaaha ñu ne ko waaw mu ne ah ñu ne ko waaw mooy leen ah lu tax nag ñu ne ko dañoo gis bi ñu taseeg moom rek mu bëgg a wax laa ilaaha laa ngir rawale bakkanam yonente bi ne leen ko wax yéen kay comme wax na laa ilaha illallah rek bàyyi leen ko ndax yónniwuñ ñu ngir ñu xocc dënni góor ñi seet ni gëmee yàlla wala déet ku ne gëm na yàlla rek jàppale na gëm na yàlla la ca des mu nekk diggante ak boroomam subhanahu wa taala Qurtubi mu ne ka annahum qaalu innama tabaaka haulaay duafa tamaan fi lizzati walmaal fa qaala fi jawaabihim inni lam aqaf ala xatum téeméeri ñaar xurtu bi nee na nit ñi dañoo ñëw ne ko ñii la topp nekk ay faqiir ñii la topp nekk ay miskin dañoo bëgg a defar seeni mbir moo tax ñu bëgg ànd ak yow nii mun ne leen loolu man sama yónne ko ci bu fekkee dañ maa topp pour bëgg am dara loola ñoom la bu fekkee dañ maa topp pour bëgg a yëkkatiku loola ñoom la waaye man lool man sama yónne ko ci in xisaabuhum illa ala rabbi seen régle ma nga ci yàlla law tashcuruun bu ñu ko yëgoon mën bi taaridil muminin di dàq ñi gëm yàlla in ana illa nazir nekkuma lu ludul waaraatekat mu biinun bu leer kon mbokk ñi doon topp agsi nañu ci aayab téeméer ak fukk ak juróom ci suratu shuara di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu may ñu beneen daje di gërëm mboolem mbokk yi nga xam ne ñu ngi fiy faral di bind di rafetlu tafsir bi tabarakallah di ci fàttaliku suñu mbokk Cheikh Abdourahman Mbakke di doom ci gaynde Fatma te benn dars du ko raw ci dars yi ak itam suñu mbokk mii di bashiru Fall nekk ca New York te di téléphoné seen waa kër ne leen bu benn kaset raw kaset bu ñu ko enregistré mu am lu mu leen jox ca loolee loolu de am nañ ci mbégte loolu tabarkàlla yàlla ñu yàlla defal jàmm defal leen ko defal ñu taw tawfiix te defal leen ko ki nekkoon ci tafsir bi moo di seen mbokk Alioune Sall ànd ak ci wàllu xarala bi ci jeexantal bi mbokk mu ñuy wax Ahmadou Samb wasalaatu wasalaam alal haadi al amin muhammadin ibni abdillah mbokk ñuy déglu ginnaaw bu ñu santee yàlla subhaanahu wa taala ci yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam dellu nañu ci kàttanu suñu boroom di ko sant ci limu mu ñu may ñu dajewaat niñ ko daje woon ajjuma jee weesu ak weesu ci waxtu wi ñu ngi woon ci suratu shuara te mooy ñaar fukkeelu saar ak juróom benn tolloon ci aaya téeméer ak fukk ak juróom nekkoon ci biir xissatub noox alayhi salaam te jeexutoon yàlla tabaaraka wa taala doon ñu nettali nit niti noox yi weddee woon yonant yi yépp ndax ku weddi benn yonent weddi ñépp naka noonu mu ne ñu noox dafa ñëw ne leen nañu ragal yàlla wax leen ne ab yonent la wax leen ne nañu ragal yàlla te topp ko li mu leen di woo ci diine ji laaju leen ci genn pay yàlla la yaakaar ne moo koy fay te it moo koy fay ne leen ragal leen yàlla te topp ma foofu nit ñi ne ko mënuñu laa topp li feek arsalona yi ñu ngi lay topp arsaluuna yi nag mooy ñi nga xam ne amuñu doole ci wàllu koom-koom amuñu doole ci wàllu colu yaakaar nañ ne it amuñu doole ci wàllu xel ñoom warew noofu ne leen loolu man awma ci xam-xam ndax yàllaa tax ñoom ñu may topp wala dañ maa bëgg a topp ndax seen koom-koom yëkkatiku seen man-man yëkkatiku noofu ne leen loolu moom awma ci xam-xam nit daal man li ma ci xam mooy su ma ko wooxee ci li ma koy woo mu ne ma wuy si naa la la ca des dama koy bàyyeek sama boroom waaye duma ca seet nag naan ndax gëm gi dëggu na ci moom wala déet man leen nit du ma leen dàq fii nag di leen fi jële képp ku ñëw fii ne gëm na duma ko dàq man waaraatekat laa dama leen di waar di leen woo ci diine ji in ana illa nazirun mubin foofu la ñu taxawoon war a doora tey incha allah ci aaya téeméer ak fukk ak juróom-benn qaalu la in lam tantahi yaa nuux la nar la takunanna min al marjumin ni réew ma dëkk ba askan wa yépp lii lañu ñu tontu noo dañu ne ko la in lam tantahi soo bàyyiwul sa waaraati wii di fekk yi ñuy def nga naan xaram na di fekk yi ñu miin nga di ko sikkal du fekk yi ñu xam nga diñu ko tere soo ko bàyyiwul yaa nooxu yow noo la takoo nan na danga bokk minal marjumiina ci ñi ñuy sadd ay xeer danañ la sadd ay xeer ba nga dee su fekkee bàyyiwu sa waaraati wi waaraati yi loolu la ndax kiy waaraate ñaare dangay defe ne dalaa bañ ndax yi sa bakkan mii noon mu ñëw naan la baaxut mbaa xaram na moo tax dama adama yi léeg-léeg suñ ci bàyyiwul xel ku ne da ngay wut sa waaraatekaay wala sa waaraatekat boo xam ne bii yi ngay bañ ko la ko wax moom du la ko wax yi ngay bëgg ku ko wax rekk la lay wax ni nga mel nu mën di doon waaraatekat boobu du ci wax dara du sikkal ni nga sikke du wax say ayib du la wax say bakkaar du la wax say manqué manqué déedéet su ko defee kooku lañ tuddee waxtaane katu diine waaraate kat nag moom day ñëw fekk la nga mel nu yàlla yi tere mu ne la nii baaxut ngay def li yàlla yi tere mu ne la lii baaxut nga nekk fu yàllay tere la mu ne la fii baaxut loolu mooy waaraatekat ñaare nag du neex ki muy waar moo tax su ko waxee rek ñu ne ko la illam tantahi soo bàyyiwul li ngay def la takkoo nan na minal marjumiina dañ la sa daay xeer yàlla nee na dëgg de moo baax waaye li ëpp ci nit ñi bëgguñu dëgg waaw walakin aksaruhum ak xaqi kaarihun li ëpp ci ñoom bëgguñu dëgg noowun bi ñu ko waxee loolu xaala mu daal ne rabbi yow sama borom inna mii sama nit ñi kazzabuun weddi nañu ma inna xawmi kazzabuun sama nit ñi weddi nañu ma wax naa leen li nga ma wax dégg nga liñ ma tontu léegi nag faftax maa ngi lay ñaan yàlla na nga àtte bay nii sama diggante wa baynahum ak seen diggante fatxan ak ak atte lay ñaan faxkum bayni wa baynahum bi ma tasha waqd baynana bi xukmika al aadil ñu ngi lay ñaan ginnaaw ñoom woo naa leen ci li ma wax gàntul nañu ma ñi ngi may fexeel léegi nag atteel suñu diggante wa najjini yal na nga ma sowe wa man maaya ak képp ku ànd ak man minal mu'minin te bokk ci way gëm yi loolu la wax góor jigéen ñeeg nag ñeeg ndaw ñeeg ba bàyyi may yi képp ku gëm na ko boole ànd ak man sowe wa man maaya ak ku ànd man yàlla ne fa anjaynaahu ñu sawe ko wa man maahu ak képp ku ànd ak moom fil fulki ca gaal ga al mashxuun gaal gu fees ga al fulkil mashxuun gaal gu fees ga dell ci ay nit góor ak jigéen waaye ci ay bàyyi ma gaal ga suñu borom tabaaraka wa taala nekkoon na nga ci def lu nekk nam ko ca waxe woon ca bind yàlla weesu def ci aw góor aku jigéen ci nit ñi na ci def góor ak jigéen ci fas yi na nga ci def góor ak jigéen ci bàyyi ma yi na nga ci def góor ak jigéen nit ñi nag moom ñu tuub rek ñoo leen dugg tabaarkàlla amoon na nag aw góor aku jigéen loolu la ci yàlla jublu woon mooy aw góor aku jigéen bu ñu dul am ay doomu aadama du am ci kaw suuf aw góor aku jigéen bu ñu dul am bàyyi ma yi duñu fi am waaw min anfusikum azwaja wa bàyyi ma yeeg nit ñi fokk ñuy ànd di takkante di am ay doom lu ko mooy jiwu doom aadama du am ci kaw suuf yàlla mu ne suma ginnaaw ga axraq naa ak axraq naa labal nañu baadu ginnaaw ga albaaqiin ña des mboolem ña des ku duggutoon ca gaal ga rek yàlla mu ne keroog lab nga albaaqiin mboolem ña desoon fas ya fa desoon bàyyi maye yépp tabarkalla ak nit ña fa desoon ngir bañ yéeg bokkoon na ci nit ña fa desoon bañ a yéeg doomi noox ja nga xam ne dafa lankoon gëmutoon la baayam nekk tabarkalla inna fi zalika nekk na ci lii nag la aayatan kéemtaan buy wane ne yàlla rekk mooy yàlla wa maa kaana aktharuhum mu'minin waaye li ëpp ci ñoom gëmuñu woon wa maa kaana nekkul aktharuhum li ëpp ci ñoom mu'minina di gëm wa inna rabbaka te sa borom nag la huwa al azizu moom mooy aji tedd ji arrahim mooy aji yërëme ji yàlla nañu yërëm ñun ñëpp foofu la nettilib noox yem ci tënk bu ko suñu borom tabaraka wa tënk ci ay aaya yoo xam ne yii aaya yu yamam yem la mu tënk ko ci ndax yàgg na koon nettali ci alquran da koy nett